yaa bismillahi rahmaani rahim salaamun minallaahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi rawatina mbokki talibe yi rawatina biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyuwaat ci barab bu tedd bi te di leen siyaare di leen ñaanal suñu borom dool ñu jàmm ñu ñëpp dool ñu tawféex bu ngeen gisee mbooloo mi suñu ginnaaw ak njàng mu am solo gi nga xam ne nii fu ñu ko déggee xel yëpp dem ci sunu yaakaar ji nga xam ne kenn mënu ko fay muy sëriñ Tuubaa sëriñ Saliou Mbacké yàlla ñu ko yàlla fayal lool tàntu muy sëriñ Cheikh Ahmadou mbooleem dongay tarbiya ci nam ko daan defee waaye jële ko ci magam ju tedd Cheikh Ahmadul Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàggul lool tànd ko biir mu jaar nag suñu jëwriñ ñi ñëpp muy sëñ Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo jiite mbooleem jëwriñ yi dongay tarbiya yi moo xam ci réew mi réew ñu ngi koy ñaanal ci biir loolu suñu borom gën koo dëgëral kàttanal ko ak mbooleem jëwriñ yi bi lan la woote xelkoom bi nga xam ne at mu nekk ñëpp nga koy séntu ndax na mu nigal mooy bàddali gerte xelkoom gi bàcc ko tànn ko yóbbu ko fañ ko bëggee loolee nag moo yegg si ci weer wii nga xam ne ci la ñu nekk muy dëppoog la vingt cinq ci départ yi yëpp nag ci biir Sénégal ak li ko wér kon ñu daal di jublu ci liggéey bi la nga xam ne moom lañ soxla ci tool yi danañ ko wax ñëpp dégg ko ci kanam bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit mbokki ñoo ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaar te di leen fàttali liggéey bi nga xam ne ci lañ jublu muy liggéey Xelcom waxtu wii lañ ko daan woote mu dellusiwaat ñu ci waat mbokki taalibe yëpp di leen ko fàttali mooy la vingt cinq novembre bii ñu jëm képp kuy jullit te nekk ci fii ci ndakaaru ak li ko wër ñoo ngi lay woo ci liggéey boobu liggéey bi nag bàcc la ak jëri tàggale gerte gi ak ngooñ mi ñoo ngi ci woo mbokk taalibe yépp fu ci waaye mën a nekk jumtuwaay yi ñu koy defee ñu ngi leen koy fàttali mooy râteau fourchette ak euh, paan ak bool lépp lu ci mën a yor te ci jumtuwaay yi nga indiwaale ko waaye ñu ngi leen di fàttali ni lépp loo xamante jumtuwaay la te ñu soxla ko muy camion yu koy roñ ñoo ngi leen koy fàttali ku ko man nga indaale ko ñu ngi ci tàll mbokk taalibe yépp loxo te xam ni liggéey la boo xamante ni ak defaru la képp koo xam ne yaa ngi jógee Dakar ak li ko wër ñoo ngi war a dem Daaru Salaam Murit ak Daaru Xudoos ak Daaru Mohin foofu mooy liggéey bi fa lañ jëm ñun ñu féete Dakar ak li ko wër kon nag yàlla nañu daje ndimbalu sëriñ bi ak tawfeexam ci barke sëriñ wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki ñuy seetaan ak a ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp te di leen baalaq di ñaanal sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ Saalihu Mbàkke sunu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér di leen fàttali rek te di leen yëgal ndigal lu tedd lu màgg lii nga xam ne moom la sëriñ bi fedd liwaat ci ñun dongay tërbiye yi ak mbooleem soppe yi nga xam ne ñoom lañ mbaaxu àndal ci liggéeyal sëriñ bi muy mbàccum gerte bi nga xam ne mooy baddali toole koom ak tool yi daaru salaam ñu gën koo xam ci Maodo Mouride kon liggéey boobu moo ñu dajale fii ñu ciy woo bépp jullit ak bépp taalibe bu dee ci wàllu soxna yi nag bu buñ ci waxee soxna Mariama Ndour mi nga xam ne moo jiite mbooleem soppe yi nga xam ne ak doon ay soxna ci aju ci daara ji mel na nañ tudd ñun ñëpp ñu xam ne liggéey bi nag moom li koy sottal mooy ay jumtukaay jumtukaay yi nag la ca jiitu mooy lu mën a defar tool yi la dara jiituwu ci oto yoo xam ne dana mën a yóbbu nit ñi fañ jëm indiwaat leen beneen bi ci des mooy oto yoo xam ne bu ñu demee ba ci biir tool yi dana mën a roñ ngooñ mi roñ gerte yi ak oto boo xam ne nii tamit mën naa jël ndox di ko yóbbu ci tool yi di ci may ci ña ca nekk kon képp koo xam ne yàlla féetuloo na la ci côté boobu ca nga mën cee tàbbal sa loxo ñu ngi la ci soññ bu baax nga soo tàbbal ci sa loxo képp koo xam ne tamit am nga benn jëf boo xam ne bëgg nga koo tàbbal ci liggéey bii nga xam ne xaj na bëggoon a dem mënoo dem wala amoon yéene def ci ci amoo foo jaaree ba man ko caa def numéro bii ñu leen di jox képp koo xam ne tabbal nga ci sa jëf bu soobee suñu borom dana agsi ci mbooloo mi muy 143 21 21 143 21 21 77 la kon képp koo xam ne tabbal nga ci sa loxo bu soobee yàlla foo ko jaarlee ci numéro boobu dana agsi incha allah beneen bi ci topp mooy ci wàllu transport képp koo xam ne am nga oto boo xam ne bëgg nga koo aale wala bëgg nga mu dem xel koom liggéeyal sëriñ bi bu mu mën a doon rek boo jokkoo ak ñun ci 77 261 21 48 bu soobee suñu borom dana ak danañ fexe ba foo mën a nekk ñu jokkoo ak yow ñu dem ci jàmm dëkk ci jàmm ci lépp ñu daje ci tawféexi sëriñ bi ak ndimbalam bisimilah barke sëriñ Saliou maa ngi fi teewal jiloo ci kàddu di wax ci région de Louga di nuyu siyaar sëñ Mahamadan Mbàkke mu sëriñ Murtala mu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci biir di wootee si Abdou Karim di woowaa Jéeleeru Silla waa Màkk Bara Gueye di woowaa Ñobre di woowaa Louga gépp rawat na waa bu sànn xel koom képp ku dégg sa rek na nga xam ne yow lañ jiital ci woote bi ñoo xam ne nag dañuy dem bàcc ji sa xel comme la ñu jëm Daaru Xuddoos mu mel ne soxla nañ ay oto soxla nañu lépp ñoo ngi woon ñëpp nag waaw ca palaasu public ba fa la ni déparé ci barkeb Serigne Saliou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen waa Mboor ak li ko wër waa daaira Majmahun Nurayni Mboor ci njiitul Modou Adda Thioune mu Serigne saaliw ñoom ñoo leen di fàttali liggéey xelkom bi départ bi nag ajjuma la le 25 novembre ca péncu kër Paarkan incha allah su ko defee ñu ngi ci soññi ñëpp képp koo ne da ngay ñëw fàtte jumtukaay yi nga xam ne moom lañ baaxoo liggéeyee liggéey bi nag bàcc gerte la ak jëri ak rongoñ lu mel ni camion ak xott saako ak radu yëpp dañ koy soxla ci liggéey bi képp kuy ñëw lépp loo ci mën a indaale na ko waajal indaale ko su defee bu dee mboora nag ak biir mboora lay doon départ bi péncum kër Paarkan lay doon ajjuma bu 9h jotee kuy dem na nga woo Modou Ada Thioune ci numéro téléphone 70 109 89 30 Touba Ndiaye Touba Tawfeex Modou Salifou Ndiaye moom moo leen fa nekkal moom moo fa nekkal bu dee Jogo Ousmane Ndiaye moom moo fa nekkal ak Fass Boy kon ñu ngi ñaan ñu dem ak jàmm dikk ak jàmm daje ceeg tawfeex ak ngërëmul Serigne bi ci barkeb Serigne Saliou jërë jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigalu Serigne Moussa Seck daara ndawi as-saaliha nee na mi ngi woote daara ndawi as-saaliha yëpp di fàttelu liggéey bi di mbàccum gerte gi di fàttelu kenn ku ne booy ñëw na nga indi jumtuwaay yi ngay liggéeyee ñu ngi dem foofu ci xel kom daaru xudus di woo nag daara yi nga xam ne seq yàgg nañoo seq ak ñoom liggéey bi yëpp rawatina di si jiital jëruñ sëñ Saliou Diouf pari ak soxna Mati ak ñi mu àndal fu mel ni niis ñu ngi woo sëñ Moussa Dieng Canada ñi ngi woo sëñ Alal Samb bu ñu duggee États-Unis ñi ngi woo sëñ Saliou Faye soxna Ndaak soxna kenn ñi ngi leen woo bu baax si liggéey bi soxna Fati fu mel ni Maroc ñi ngi woo sëñ Pape sëñ Pape Booy ak ak soxna Daba Kennal ñi ngi leen woo bu baax ci liggéey bi ñi ngi woo Daara Ndaw Asaliha Sénégal joriñ sëñ Soin bu Seck ku mel ni ñi ngi woo waa Lawbe sëñ Saliou yi nga xam ne yàgg nañoo ànd ak ñoom liggéey bi ñi ngi woo waa Mbour sëñ Saliou Fatick ñi ngi woo euh, sëñ Saliou Faye soxna Mbawta Thiès Ndar ñi ngi woo sëñ Ahmed Ndar ñu ngi ñi ngi woo daare ndawi asaliya yëpp ñi nga xam ne yàgg nañoo ànd ak ñoom liggéey bi ak fu ñu mën a nekk nii ngi déparé kaas ba jëm daaru xudóos salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mu mel ni noo ngi jottali fee ñu bàyyi ko muy tiwaawan noo ngi jottali wooteeb Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ci woote mbàccum Xelkom le 25 novembre Serigne bi mu ngi woo mbooleem njabootu Serigne Touba gi fi nekk penc yi fi nekk pencum Serigne Moustapha Bassirou soxna Faati Mbàkke nekk fa Baye Fallou Serigne Moustapha Bassirou mu mel ni sëriñ bi mi ngi woo waa kër Cheikh sëriñ Cheikh Mourou Ba Guèye ak mboolem gox ya nga xam ni euh, ñoo ngi aje ci biir kër sëriñ Touba. mu mel ni mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi di liggéey niki waa alxuraanul karim ca kanam. mboolem kuréel yi nga xam dañoo ànd ak ñun di liggéeyal sëriñ Saliou Mbacke waa subaanul asubaanul mujaahidoona ñoo ngi leen di woo wooteeb sëriñ bi ci mbàcc mi. fépp foo xam ne nit a nga fa rek te bokk ci kuréelu soppi sëriñ Saliou Mbacke yi nga xam dañoo ànd ak di liggéeyal sëriñ Saliou ñoo ngi leen di jottali wooteeb sëriñ bi bis ba nag le 25 novembre la kon na ko ñëpp wàcc wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit di mbokki taalibe yi noo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu mbokki Touba Toul yi di leen fàttali liggéeyu xel Xelcom bi sëriñ bi jox dongay tarbiya ak mboolem soppe yi di ci woowaa Touba Toul ñëpp bàyyiwuñu kenn di fàttali bés bi le 25 la novembre bii ñu nekk départ bi buntu mairie bu di ci soññ mboolem dëkk yi wër tubaatul yëpp moo xam Newraan réew maaw ba biiru dëkk bi yëpp ak euh, Daaru Ndiaye ñoo nga fay soññee ci njiital sëñ Ibrahima Ndiaye euh, ak euh, xombal ci njiital sëriñ bàyyi Mbacke soññ ñëpp ci liggéey bi ñu wax nañu ko waajal bu baax a baax rawatina mbooleem ñi nga xam ne am nañu ay jumtukaay lu ci demee ne oto wala ay ratu fourchette yëpp lu ci waaye mën a am rek ba ci xott saaku yi sax yittewoo nañu ko kon mbooleem lu nit mën a jàpp ci liggéey bi ñu jàpp ci bu baax a baax ñu fàttali ne nag mbooleem Touba ak li ko li ko wër noo ngi jëm Daaru Salaam Maodo di ci soññi ñëpp mag jàmm di kon dégg yi loolu mooy départ yi nga xam ni fii ci Dakar ak li ko wër la ñi ngi ñaanal nag ki nga xam ne nii mooy sunu jëwriñ sëñ Abdou Ndiaye suñ borom gën koo dëgëral kàttanal ko ci liggéey bi ñu ko dénk yaakaar ko ci lool yàlla na ci am lu kawe njortam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk moom liggéey bi ndax daara yi yëpp benn la ki ko moom kenn rek la mooy ki ñu defar tamit ñu ko fay mooy Serigne Saliou Mbacké yàlla ñu ko yàlla fayal jumtukaay yi nga xam ne moom lañ soxla ñu ngi koy fàttali ñëpp camion oto ndox li nga xam ne mooy euh, L200 yi wala kaaru bis lépp lu ci waaye mën a joxe ñu ngi koy sàkku coow nga joxel ñu ko wala nga yónnee ci numéro bi nga xamante ni lépp loo ci def suñu borom dana ko gis sëriñ bi dana ko gis dana ko nangu dana ak ci liggéey bi 77 143 21 21 ci wàllu transport bi itam numéro bii lépp loo xamante ni jokkoo nga ki nga xam ne mooy wàllu transport 77 261 21 48 mooy numéro bii ngeen di jàkkaar lool mbokk yi li ñu soxla mooy radu fourchette paan bool palaat bërigo saako findi feer kubéeru ventilateur waaye ñu may tubbu si woote baa ngoog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi